serigne Sidi makhtar Mbàkke ñu gën ko xam ci turu mam Cheikh Anta Mbàkke domi soxna Anta Njaay ak mamor Mor Anta Sali rek ci serigne touba bi mu ngi feeñ jamono ci atu 1865 ci Poroxaan donte ne amna ñu wax yenen dat li waral garu daru salam moy bi serigne touba bayiko ko ci géej gi daf ko setti won ci bis bi lañuy ñuy serigne dam Abdourahman Lo ak serigne morsek ak serigne mamour jara ak ñenen ñoko jangal mom borom deureum ak ngeureum nekon bay kat bu mag moom boroom gaawaan seeti woon na Serigne Touba bi mu nekk ci tukki gi gi bi mu amee 18 la ko Serigne Touba may dëkk bi di Daaru Salaam nga xam ne mooy dëkk bi Serigne Touba njëkk a taxawal caatu 1884 jatu 1928 maam Seex Anta demoon na Màkka ànd ak Serigne fallu Mbacké ak Serigne Mbacké Bousso ak doomam Serigne Takko ak Serigne Ibrahima Dia ak Serigne Mayoro Fall ak Serigne du Ndiaye Diop ak sëriñ Serigne Moulay Bousso mu Serigne Mbacké Bousso moom sax fa la nelawee si atu 1930 ba atu 1935 borom Daaru Salaam ñu yóbbu ko Mali ndax élection législative bu fi amoon ci diggante Blaise Diagne ak Ngalandou Diouf mu jox Ngalandou Diouf xaalis ngir campagne loolu merloo Blaise Diagne mu mere ci maam Cheikh Anta benn bis maam Cheikh Anta génn Sénégal dem Gambie te amul autorisation ci la Blaise Diagne joxe ndigal ñu jàpp ko yóbbu ko ca Mali ñu teg ko fa ay fitna ginnaaw bi mu waxee ne dix ans la fay def moom Blaise Diagne waaye matu ko ndax atum 1935 lañ ko bàyyi ginnaaw bi fa Serigne Fallou Mbacké demee maam Cheikh Anta mooy ki yokk budget bu Sénégal en 1910 loolu toll ci 24 million francs fa Bouba Afrique occidentale française le new wax di AOF mooy ki njëkk am téléphone fixe atum 1928 moom lañ tabbu sénégalais bi gën a siiw ci Afrique sow jant di Afrique de l'Ouest mooy sëriñ bi njëkk financé campagne politique sain ci Sénégal atum 1922 mu jite woon délégation bi demoon Tiwaawan doon jaale ginnaaw bi Seydi El Hadji Malick bàyyi ko àdduna jafe-jafe koom-koom yi amoon atum 1919 crise économique mu joxe ci 12 500 ci tonne ceeb moo ngi fi bàyyi ko le 10 mai 1941 ñu jébal ko boromam ca Daaru Salaam. ay xalifaam Serigne Modou Mamoun Mbacké atum 1941 ba 1969 sëriñ Tàkko Mbàkke atub 1969 ba 1975 sëriñ Ibrahima Mbàkke Ndar atub 1975 ba 1987 sëriñ Sam Mbàkke atub 1987 ba 1998 sëriñ Moustapha Ceytu Mbàkke atub 1998 ba 2001 sëriñ Hamidou Mbàkke atub 2001 ba 2009 sëriñ Mamor Mbàkke ibnu sëriñ Tàkko 2009 sëriñ Jili Mbàkke septembre sëriñ Sidi Mbàkke mooy xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke